ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàllaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw ba ñu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala bi ngën gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam noo ngi sant Seexul Xadiim bu baax a baax mbokk yi tey jii ñoo ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima njaay Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziyaara di ziyaare mboolem koo xam ni yaa ngi teewlu émission bi di ziare waa bitim réew bu baax waaye di ziare it ñi nga xam ne ñoo féete ci réew mi di ziare Baye Talla ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax Cheikh Ibrahima tey nag waxtaan bi waxtaanu daara la ndax tey daara ji lañuy déplacé indi ko ci daara noonu lañ ko mën a tuddee Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax a baax baax a baax. waaw waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi lay fay nuyoo di la dalal fii ci kër gi di nuyu ñi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew di leen wax ni waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di rafetlu yitte ji nga xam ni def ngeen ko ba déplacé wu fekk ma fii ngir ñu waxtaanee loo xam ni njariñ lay doon ci jaami yàlla yi ak jullit yi ñu ngi lay ubbil bunt boobu tey ñaan yàlla lépp lu ñu fi génne ci ay kàddu mu nekk loo xam ne njariñ lay doon ci biir ak ci biti Sidna Ousmane amin euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye jërëjëf kaddu yi am na solo lool Cheikh Ibrahima xam naa dañuy daal di euh, tabbi ci euh, waxtaan bi ndax mbokk yépp ñu ngi ñuy diglu incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla may ak dégg ak topp ci waxtaan bi yàlla na ko ñëpp jariñoo Cheikh Ibrahima waxtaan bi nag tey day jëm ci dëggi-dëggi turu yàlla ndax dafa am ay maara yoo xam ne dañuy yëngu ci wàll wii ngay yëngu ñu bëggoon a xam ndax ñun ay doomi daara lañu dañoo bëggoon a xam sëriñ bi nga xam ne dafa dem jàngi xam-xam kese rek yam ca di ko jëfandikoo ak sëriñ bi nga xam ne dafa jàng xam-xam comme ni ko ñëpp di defee waaye it da cee boole di sikkar di tudd yàlla Ibrahima tey loolu boo ñu ko doon tojal tey naka nga ñu ko mën a waxee bañ mën koo jariñoo ba am ci dégg-dégg. waaw Seydina Ousmane. waxtaan ak yow dina neex lool ndax yow danga génne ci pàkkub alquran koo xam ni sëriñ saalix mbàkke moo la yaral boppam nga génnee xelkom te koom wax nañ ni jamono ji suufu Sénégal mooy suuf si ëpp lu muy génne nitug alquran dëgg foofa boo fa jógee di ñëw ba fii ci man di laaj lu jëm ci wàllu yàlla dinañ sawar ci leeral gi waaye dinañ xam ni buñ la ko leeralee di nga ko mën a dégg. dëgg la. looloo tax euh, am nañ ci ak contentement ci déplacé googu li nga laaj nag muy ki nga xam ni dafa jàng ay téere lan moo ko wuutale ak ki nga xam ni day werd tur yàlla. wuute gi ni mu toll kenn mënu lu ko wax gannaaw ba nga xamee ni jàng nga téere yi am te xam-xam indi ko ñu xam ko ba pare ci téere yi soo bëggee xam sa borom faw dañ lay werdloo te suñ borom mi nga xam ni moo wàcce téere bi ci ñun wàcce ismulail azam yi ci ñun moo ñu waxal boppam ni ñu wala zikrullahi akbaru dëgg la tudd yàlla moo féete kaw lépp ndax yàlla ci boppam nag moo féete kaw lum amal ndax lu am suñ borom a ko amal dëgg la ismullahil azam nag dafa nekk loo xam ni beesul tey ba ñun rek ñu mën koo waxtaanee dafa ne lu nekk ci àdduna bi yëpp ñëpp xam ko <laughs> réew moo dem nag lu jiitu sax yonent bi yonent yu njëkk ya sax dañ daan tudd yàlla. sallallahu alayhi wa sallam. te itam xadara boo mën a teew moo xam sa ruux moo fa teew moo xam sa jëmm moo fa teew boo fa demee foofa dañ fay amal tudd yàlla. Mhm. muy loo xam ne malaayika yi dañ koy def yàlla suñ borom subhaanahu wa taala sax xamuñu turam wu muy tudd waaye xam nañ julli gu muy julli ci yonent bi moom malaayika yi. sallallahu alayhi wa sallam kon dayoob tudd yàlla. Mhm. tolluwut ak lenn ci kaw suuf. suñu sëriñ bi nga xam ne nag mooy suñu wasila muy sëriñ Tuubaa daf ñoo wax ni ñu amma dawaamu sikrullahi fa huwa akbaru lépp lu ngeen gis nit di ko def ci àdduna lu dul tudd yàlla loola tudd yàlla moo ko ëpp doole suñ boroom wax ñu ci biir alquran ni ñu wala sikrullahi akbaru tudd yàlla moo gën a màgg ci li ngeen di wax ci kaw suuf si yonent bi sallallahu alayhi wa wax ñu ni ñu baatub subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar képp koo xam ni saxal na ko ci làmmiñam wii di ko tudd mi ngi wax loo xam ni yowmal qiyaam balance ba ñuy peesee jëfi nit ñi amul jëf ju gën a diis baat yooyu muy wax ci kaw ci kanamu yàlla ëllëg mooy di tudd yàlla waaw mooy di tudd yàlla ak di julli ci yonent bi kon tudd yàlla am na différence mm-hmm. wax naa la ci bëccëg ba ñuy waxtaan ni la dégg goo malaayika yu ñu wax ni la wàcc nañ ci ab ñoom ab téere sàngam ñu koy jàng. Hmm, dëgg la. waaye xanaa nag loo gàtt gàtt dégg dégg nga malaayika yuy sàbbal suñu borom. ci lu wér. Hmm? ci kon tudd yàlla commencé wul fii te yemu fi yowmal xiyaam it bu ñu fa déggoo déggoo genn kuréel goo xam ni ëllëg yowmal xiyaam dañuy toog di jàng. waaye kuréel guy tudd yàlla am na yomal xiyaam mi ngi ci téere yi ni gàññi kon ñaar ñu ànd lañ ñu munta tàqalikoo niroo loolu waaye bokkuñu mooy yan ñaar mooy jàng xam-xam boo xam ni nag bi tax may wax am njàng mooy alquran alquranul karim ak tagg gi ñu tagg yonent bi ak téere yi nga xam ni dafay génn xam-xam buy orienté nit waaye loolu lépp soo ko boolee tudd yàlla da koo gën a gaaw ci orienté doomu aadama ndax nit lum jàng lum bari bari bari bari te jëmewu ko ci suñ boroom jëriñul dara te nit ñi dañoo nekk ay kuréel yu wuute waaye kuréel gi nga xamante ni si ñoo ci gën a jige suñ borom gën cee orienté wu te kuréel gi nga xam ni ñoo mën a lijjanti mbirum jaam ñi kuréel gi nga xam ne ñoom la yàlla dénk àdduna mooy kuréel bi nga xamante ni si ñoom dañuy tudd yàlla fuñ toll. Mhm. Seydina Ousmane daal tudd yàlla mooy mbirum doomu aadama. jërëjëf euh, jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye euh, leer lii am na solo lool macha allah Cheikh Ibrahima ñu bëggoon a xam baatin baatin kon ndax doomu aadama bi wala waliyu yi ndax mën na koo amee ci tudd yàlla. ak baatin naka la demee ak sëriñ bi nga xam ne day yëngu ci wàllum asraar euh, fan la mën a jaar euh, ba mën a am baatin ak baatin lan moo ko wuutale ak doon nitug yàlla waaw nitug yàlla moom cër la rek bu suñ borom di def ci nit niñ leen di leerale nag des fois day am ay erreur mhm. ndax nit ñépp ay nit yàlla lañ nit ñëpp ay nit yàlla lañu. waaw gisoo fi jàmm yàlla moomul te ku yàlla xas ba moom rek ci nit ñi nga bokk te gisuñu fi nit ku moom kenn. Mhm. dëgg la. kon baat bi ni ko olof indee yeneen làng yi mën nañ koo bañ a indee noonu te xam nga xam-xam boo koy wax muy tasaaroo ci àdduna. dëgg la da koy wax mu leer te bañ ko wax ni nga ko déggee ndax kenn du attewu ci am xel. Mhm. kon jaamu yàlla boo gis nitug yàlla la ndax moomeelu suñu boroom la. waaye bu dee nitu yàlla yi nga xam ne nag Sénégal ñoo ko créé ñoom mooy koo xam ni awliyaa la ñu ni kii nituk yàlla la kooku am na separation ak nit ñi ndax yonent bi moo leen njëkk a séparé mm-hmm. bi dafa wax ni ñi yàlla yónni mu yonent yi moom moo leen matal gannaaw yonent bi koo dégg ñu ni la yàlla yónni na ko ab yonent la weddi ko mm-hmm. wala ci naafeq nga bokk dëgg la yonent bi moom moo tëj ràng googu waaye nit yàlla yi ñëw ci ginnaawam ñoom ñëppit koo ci gis mu yor mbirum boppam mu jógewul ci yonent bi moytu ko hmm. kuy sànkaate la waaye jëmul fenn ndax yàlla kenn mënu faa yóbbu nit te jaaralewoo ko ci bunt bi yonent bi sallallahu alayhi wa hmm, sëñ sàmbay sa waaja nee na hmm. ilhab baaban waahidan iftax lakal abwaabu bunt yëpp fëgg naa ko waaye benn bunt moo tijjee ko ci yàlla muy bunt yonent bi sallallahu te it booy jël referance jël ko ci ñi la gën a jige te nga xam leen xam seen xabru ñu nekkoon fii di ay nit yàlla looy wëri ci ay arab mhm. dëgg la di nga wax bi dëgg naa bu baax li nga wax Cheikh Ibrahima Sëñ Tuubaa ni ndimbalil nit ñi nekkul fu ci yàlla ci sama nag laa leen koy waxee man mii ngeen yaakaar gannaaw ba ngeen ma joxee seeni xol ba jëm si ci man xol bu agsi ndimbalul yàlla li nekk ci man moo koy dimbali quluubu jumlatil lasiina aflahu li yatawajja xattu rabbil muslim képp ku ma bëgg ngir yàlla mbëggeel gi buy agsi ci man ndimbalu yàlla li nekk ci man moo koy dimbali moo koy dimbali ñu ne ko lan la yàlla dimbalee mm-hmm. mu ne falaahi bi fadlillaahi fii lawxil jarra mu ne yàlla dama dimbali ci ndimbal loo xam ne nëbb ko kenn jant bi lim naan fang dang ci kaw asamaan si di leer ndimbal li yàlla gëna dimbali sëñ Tuubaa moo gën a leer jant bi ci nit ñi mhm. sëñ Tuubaa ne yàlla dama dimbali ndimbal loo xam ne nëbb ko kenn dañu ko fang ci seen kanam ngeen koy gis ka ci am problème nag muy ka ciy jéem dara mhm. xëyri mi haddin duna makrim wala xaw fi mhm. maanaam day jéem ba sonn du ca man dara ba pare jaare ca yoccax ndimbal li ne fi di gën a dox di wéy dëgg la loolu mooy ku yàlla dimbali. Euh, jërëjëf Cheikh Ibrahima euh, du ñu la dog euh, waaye Cheikh Ibrahima macha allah kàddu yi am na solo lool Ibrahima Cheikh Ibrahima nga baal ma doomu aadama bi naka la war a fanke boppam ci li ko yàlla defal. ndax damay seetlu ne doomu aadama yi ci jamono yi ñu toll nii Cheikh Ibrahima Euh, ñu baree bari réer nañu xamatuñu fu ñu jëm topp nañu poñetum àdduna rekk jublootuñu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala euh, loolu tey bokk na ci li tax ñu déplacé daara ji indi ko fii ci daara ji euh, kon doomu adama yi Cheikh Ibrahima li leen yàlla defal ak teraanga ji leen yàlla defal naka lañ ko mën a xamee ñoom doomu adama yi waaw nit ñi ñu bari dañoo fàttalikuwul seen bopp. Mhm. nit bu jëlee jëmmam delloo ko fa yàlla commencé moom ba muy fasanteek kóllëreeg moom te du dara te kóllëre ga yàlla gàcce ko mbooleem lu mu bind attanu ko nit su xalaatee guddi gi yàlla di rocci dund dugal ko ci biir jëmmam muy mën a dund nit bu xalaatee guddi gi yàllay rocci dee dindi ko ci biir jëmmam dootu dund mhm. nit bu xalaatee lii nii rek nekk ci kanamam mooy waxtu wi nga xam ne yàlla day ci guddi dugal ko ci bëccëg waxtu wi nga xam ne yàlla day ci leer dugal ko ci lëndëm nit bu xalaatoon lool rek ba ubbeeku ci loolu xam boppam mhm. waaye loolu doyul doomu aadama su xalaatee li ko suñ boroom defal ak li yàlla jël ci boppam jox ko nit ba ku am ak ku ñàkk ci am nit ci boppam mën naa créer moroom moroomu nitam ni moom ci ndimbalul yàlla te xamul fum jaar te amul fenn fu mu mën a jaar fu dul ci yàlla ba créer loolu su fàttali ko woon loolu rek nit dootu xeeb boppam te yàlla bàyyiwul xel kenn koo xam ni matalul cër bi mu nga xam ne suñ borom def na ko ci moom kon doomu aadama yi benn ñi gën a ñàkk jom ci kaw suuf mooy ñi nga xam ne dañoo xeeb seen bopp ndax nit loo xeebee sa bopp rek yàlla def na ko ci yow. Mhm. te koo bàyyee sa bopp yàlla bàyyee boppam. dëgg la. kon ki ki nga xam ni ak dundam mi ngi koy dund ci lim xam mooy ki nga xam ni yàlla mooy yitteem waaye yàlla la jëmme boppam jëmmewul boppam ci kenn. dëgg la kooka. mu mhm. réussir. kookee nga war a jël sa bët yi teg ko ci moom da doo ko teggi waaye ku dëgmal adduna tam yow leeral ni adduna ñam àndaloon ñëpp bana leen fi moo banañ ko fi dem mhm. moom mu des fi mhm. foo bu ànd ak moom foo jëm ah kenn foo jëm waaye léegi nag bu dee sa àdduna da dangaa ñëw dund gi yàlla jaaral la ci yow taloo koo dund ndax adduna nga xam ni sa xel mi rek ngay jëfandikoo sa bëgg-bëgg waaye sa ruux gi dundaloo ko sikkaroo fi jaamuwoo yàlla ci nim la ko digalee. defoo fi na loo xam ne mën na laa soowee ëllëg fañ jëm loo fi doon wut doon wut ci àdduna. ok dëgg la. yàlla bindul kenn ngir mu ñëw fi am alal ndax alal bu ko yàlla de jël bu la fi yàlla jëlee buñ koy séddale nee na sax yow mi ko yoroon buñ la ñaanal ndax boo amoon solo nga yóbbaale ko bi nga fi ñëw indaale ko booy dem doo ko yóbbaale sëñ Saliou Mbacke da daan wax ni. ñaar yi jërul ñaan. yan ñaar. bi njëkk mooy alal nee na loo ko bari la bari la boo tëddee nelaw fàtte ko. moom alal. moom alal sa boo boo dee ñàkk. loo ko bari la bari soo tëdd rek ko. waaw booy tëdd nelaw nee na booy dee ñàkk ko. Mhm. ñàkk ko. waaw nee àdduna jërul ñaan ndax mënoo koo ñaan ba am ko te fa nga jëm jëmu fa. àdduna mënoo koo ñaan ba am ko ndax àdduna doonu lu ñuy am yaa ngi dégg te fa nga jëm jëmu fa mhm. yemal xëyam àdduna am fa mhm. bokkuñu programme il faut nit ñi ñu indi leen ci système bi leen tax a jóg wan leen suñ boroom nandal leen yàlla xamal leen ko mhm. te bañ leen a xeebloo seen bopp def leen ni jaam jaamu nit amul jaamu yàlla moo am ku la bëgg a defub jaam bañal kay jaamu nit amul jaamu yàlla moo am ku la bëgg a def ab jaam bañal nit luñ koy toppee nekkul ci moom yàlla ji ñuy xencu ci moom lañ koy toppee koo xencu yàlla ci moom gisoo yàlla ci moom wan ko ginnaaw Seydina Usmaan da lay tardeel mhm. diine du fukki diine di juróom benn diine jenn diine moo am muy lislaam jeneen diine jurul lislaam wan ko ginnaaw yow jullit bi du sa diine du sa diine benn yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo concerné jullit ñi kooku la yàlla yónni ci ñoom mm-hmm. téere boo gis te du téereem wax joo dégg te jógewul ci yonent bi mënoo cee am dalil lu leer ci biir lislaam ba fa loola tawan ko ginnaaw dem dalay tardeel jërëjëf yaa ngi dégg maa ngi dégg baax kenn ku nekkit boo góor góorloo mën ngaa dimbali sa bopp li ngay sàkku ci ñëpp mi ngi ci yow ay kiiraay dong nga tee nga jariñoo ko ah dëgg la Cheikh Ibrahima eh, jërëjëf kat yi am na solo lool eh, foofu li ma ci eh, dégg rek mooy fan yi damay faral di teewlu réseaux sociaux yi ma gis benn waay boo xam ne moom mën naa ne aw yëngutoom sax demul noonu waaye ci jamono yii rek la ko nit ñëpp xam yaakaar naa ne su ma jumul sax bokk na ci ñi nga ñi nga xam ne ñi gën a siiw ci jamono yii ñu toll nii la nga xam dama ko gis rek muy benn xale bu góor jàpp naa ne sax nekkul ci réew mi eh, jàpp naan ci biti réew la nekk waaye damay gis eh, eh, day moom day tàllal loxo yi rek day faral di tàllal loxo yi te di joxe di joxe ay signes te jàpp naa ne jamono yi ñu toll nii mu mel ne koon suñu borom subhaanahu wa taala waxul kenn dara te yaakaar naa bàyyee yàlla suñu borom sa bopp it Ibrahima danay danay baax ak ci ci loo mën a gis. moom nu tudd. kooku euh, yaakaar naa xabilaam lañ koy wax. Ah, xabilaam waaw turam yaakaar naa xabilaam lañ koy wax su fekkee ma waaw kooku dinaa koy gis muy defi siiñ. Mm. waaye man yàlla lay dégg ci moom ndax. Mm, yàlla ngay dégg ci moom. yow naka ngay déggee yàlla ci moom. waaw damay wax nit ñi nga xam ni mënuñoo wax amuñu làmmiñ bu ñu yàccaaral. ndeysaan. bu dee ab doomu aadama toog na lu waaye def te jaaduwul mu tàllal la loxo yi nii nii. nam doon def naan ni àdduna bépp soxla ko ci lii te ba léegi ubbeegul gi mi ngi wax. ci yàlla. kon wax sotti loolu lépp. dëgg la. yaa ngi dégg yàlla nag fu mu jëme nit ñi ñu jëm fa. moom yàlla sunu borom. waaw loolu yàlla fu mu nit ñi ñu jëm fa. ndimbalul yàlla li yàlla jaar la ci moom daa woyof tooy diisul waxut ak nit ñi sax. waaye ña nga xam ne ay wax da leen a woon ñoom ñëpp wuy si nañ ko te waxul yàlla ngoog <laughs> dëgg la ñaa ngi dégg dama la boo bëggee dem àgg fa nga jëm féeteel ak yàlla féeteel ak yàlla waaw yàlla nee na benn bakkan munta dimbali moroomu bakkanam yow ma laa tamliku nafsun li nafsin say an wal amru yow ma isin lillaahi lii yàllaa ko wax ci alquran ndimbal la muy wax nag mooy la la yàlla waroon a dimbalee nit ma mun la ko dimbalee nit ku nekk nag mën ngaa orienté doomu aadama ci ndimbalul yàlla li waaye diw maa ko dimbali xanaa bala ngaa dimbali bind. Mhm. <laughs> macha moo tax ma ne la dee leen jël mag ñi di leen def référence. macha allah nit nekkul lu ñuy fowee rawatina ci jamono jii jamono jii nag. ku yor sa kurus di tudd yàlla walla nga yor sa téere di jàng alquran wala nga yor sa kurus di julli ci yenent bi raw nga ba faw waaye ku fi bàyyi yooyu mhm. topp iblis mhm. demoo fenn ndax iblis da lay loo rek iblis mooy ceeñeer bañ na ceeñeer la koy woowee ceeñeer ceeñeer mooy mhm. booy dawal sa oto bii ci naaju tàng seen tël bi mel ni géej ngay daw te romb te doo gis mennum ndox. Mhm. iblis a ngoog. laa ilaaha illallah yal nañu yàlla dollee musal ci moom. xam nga ceeñeer. xam naa ceeñeer bu baax boo jiwee tëli bi tàng di daw mu mel ni ci géej nga jëm. Mhm. loo romb doo fa gis mennum ndox. wallaahi iblis ak jëfam ma ngoog waaye àdduna ak jëfam a ngoog. wallaahi wallaahi lépp lay wor da lay nax. jërëjëf jërëjëf Cheikh Ibrahima euh, amaat nañu mbégte lool. Euh, tey daal euh, rëcciwuñu euh, li ñu déplacé daara ji indi ko fi macha allah ndax tey képp damay wax ne képp ku bëgg dégg xam-xam walla nga bëgg a xam yàlla na nga daal di topp waxtaan bi bu baax a baax te diglu te digloo ñu ak xol bu baax a baax incha allah Cheikh Ibrahima jërëjëf loolu am na solo lool kon foofu dañ fiy jàngate na daal lépp mi ngi ci loxol yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala te doomu aadama bi it warut a yàkkamti dara. ndax euh, wërsëgam lu mu war a am dana ko am incha allahu ndax maa ngi dégg sëriñ Sambay euh, di wax ne euh, man li ma yàlla sant mooy sabablu gi dama ciy nekk waaye li nga xam ne moom laa war a am miñ ci loxol yàlla kon loolu moom nga ma indi la tey ci sa biir waxtaan ak leeral yi nga ci def yëpp macha allah loolu am na solo waaye Cheikh Ibrahima damay dégg borom jinne yi Cheikh Ibrahima bu dee ñun ñi nga xam ne ay doomi daara lañu bàyyi ci daara bàyyi ci kër kilifa. ay borom xam-xam Cheikh Ibrahima Jinne euh, euh, lu dis la lu yéeme la yaakaar naa ne bari na ñuy wax ne yor nañ ay jinne te yoruñu jinne Ibrahima Jinne mooy lan ak jinne lan la mën a defal doomu aadama bi ak Cheikh Ibrahima sa jinne yi naka nga nekkee ak ñoom euh, ndax ñu bëree bëri ñu ngi naan Cheikh Ibrahima Ndiaye borom jinne yi te am na ci ñoo xam ne it am nañ ci ay firnde Cheikh Ibrahima loolu bëgg naa nga leeral gën cee leeral mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan yëpp. waaw maanaam dama ne boo amoon daayirab junne yoo xam ne ñoom ñëpp ay jinn lañ bëkk néegum nit ak leen tane ci yow dégg nga wax <laughs> boo xamante nii mën na ñaari junni nit ñëpp doon ay junne topp la nga am benn bëkk néegum nit moo ko tane ci yow sëriñ bi sëriñ bu xam yàlla àgg ci boromam dayoo bi junne di am ci moom mi ngi mel ni ndongo boo ko indil mu war a jàng si te xamagul dara ñàkk solo gi muy ñàkk solo ci daara ji nga xam ne moom basin lañ koy commencé dara rek <laughs> yooyu nga xam temps ba war a def bokkut ak ndongo yi nga xam nag ñoom ña ngay jàng xam-xam waaye bokk nag ki nga xamante ni jàng na ba pare nag moom di la liggéeyal mhm. maanaam junne ci doomu aadama nuveem dafa suufe lool lool ci kaw boo ko bëggee jariñoo la nga daj foroon benn doomu aadama sax defar ko jariñoo ko da koy gën a gaaw mhm. jinne waaw ku xam yàlla ah, ci ku xam yàlla mhm. Mhm. ku xamagul dara nag moom ñoom dañ lay wan yoo xamante ni si ni da nga yaakaar ni yooyu mooy njariñ li te yooyu nee na la àdduna rek lala la ah. dëgg te lépp loo koo àndal ku mën a doon moo xam nit la moo xam jinn la moo xam leneen la seen ànd mu cay boole wax jurul dëgg maanal ci moom te jinne yi dañuy fen ah. nit ñi tam sax dañuy Ibrahima lu mën a leeral la noonu macha euh, yàlla nee nit ñi ak yi ña ngi kaw suuf di ma te léegi da ngay ñoo xam ne euh, dañ naan dañu am ay jinne euh, di di ko wax fu nekk kon suñu déggee sa wax ji euh, Cheikh Ibrahima xam naa dinañ defaraat seen toogaay tamit. waaw xam naa ne daal jéem a defar nit ñi moo gën ngay topp mbirum hmm, la <laughs> macha allah jërëjëf euh, jéem a defar nit ñi euh, moo gën ngay topp ay mbirum jinne si loolu am na solo lool macha allah Cheikh Ibrahima tey nag dama jot mbokk moo xam ne ma nga ca Espagne. mu wax ma lu yéeme yéeme nee na moom daf ma giñal nag billaahi wallahi wa tallaahi ma ne ko ah sëñ bi ci yàlla mu tedd bi nga giñ mu ne ma ci laa giñ te boo bëggee ma waataat mu ne ma moom xam na sëriñ su bari fii ci réew mi ak ci yenn réew yi waaye mu ne ma ñu may seetal yëpp duñ ma gis li ñu may wax rek mooy li ñëpp di faral di wax te ñëpp tàmm koo dégg mooy a ah, oto bi ngay waaj am sa wërsëg bi dafa dëpp sa soxna yéen a ngi bëgg am problème sa kër yëngu na nee na daanaka ñam daan seetloo ñu ci ëpp genn wàll gi loolu lañ ko daan wax tey nag bi ma ko jotee mu waatal ma ci yàlla ne ma benn seetkat benn seetkat moo ma sa seetal ci àddina gis ma muy Cheikh Ibrahima Ndiaye loolu la ma wax mënu ma la ca gën a garaaw te te yéeme mooy Cheikh Ibrahima daf ma wax ba wax ma la ma teg sama néeg ak la ma yor ak lañ ma jox ak la ma takk ci sama loxo kon Cheikh Ibrahima wàllum ceeb lan la la ci suñu borom subhanahu wa taala faggul ba tax nga mën koo gisee noonu di ci gis ay mbokki taalibe ba ñuy woote téléphone di ko seereel yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu daal li ma la ci mën a wax ci gàttal man damaa dépassé ak seet. da ngaa dépassé ak nga loo dépassé doo doo ci nekk man damay gis damaa dépassé ak seet. <laughs> macha allah. ku toll ci seet te gisagoo yow da ngaa war a continuer sam njàng. man nag damaa dépassé ak seet damay gis damaa woo ma gisi mbiram wax ko ko su ma tolloon fu ñuy seetee du seetal kenn ndax gisaguma di da nga wax we moo tolloon fu ñuy seete fa ñuy seete <laughs> mu fa tolloon ku ma woo ma seetloo dama naan la gisuma la waaye fi ñuy gisee laa toll weesu naa fa ñuy seete sëñ na Ousmane fi fi nga toll waaye weesu nga fi ñuy seete fa ñuy seetee laa la wax mhm. weesu naa ko man fi ñuy gisee laa toll moom damaa gis mbiram waaye seetuma ko macha allah dama la mbir mu ma jaral seet moo fi amul man mbir mu may gis laa la laa xam wax borom la ma gis. ci yàlla suñu borom. waaye làmbatoo ko seet moom wax dëgg yàlla moom détail yooyu weesu naa ko suñu asumaan. ah jërëjëf Cheikh Ibrahima loolu euh, leer na. kon nag suñu gamooñam maa ngi seet waaye jamono ji moom. waaw <laughs> wax dëgg yàlla dépassé naa jamono yooyu. ah alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Cheikh Ibrahima. ah moom de noonu lam ko waxee euh, wax dëgg yàlla te muy lu leer te te indiwaat nga ci ay kàddu yi leer macha allah jërëjëf. Euh, kon wàllum seet gi moom yaakaar naa féete na boor ci ñi ko bëggoon a xam wala ñu yittiwoo ko wala ñu soxla ko euh, rawatina waa bitim réew euh, Cheikh Ibrahima mu am beneen mbokk boo xam ne mi ngi ba Pays-Bas mu woo ma téléphone di ma seereel sa diggante ak moom waaye nag mu wax ma lu yéeme loo xam ne man mii nga xam ne yàlla dogal na damay doomi dara loolu musuma ko gis te fu nekk dañ fay dem daara ji dañ koy déplacé di ko yóbbu fu nekk macha allah mu wax ma ne ma Cheikh Ibrahima moo ma faj te gisuma dama ame woon bopp bi metti sept ans juróom-ñaari at nee na mi ngi amee bopp bi métti ak ay jafe-jafe ba mu la woowee téléphone nga déggante ak moom ca nga ko ñaanal ñaanu distance saafaraam faju fasansa Ibrahima loolu loolu loolu lan la. ñaanuk distance loolu mayu yàlla lu ñuy jàng. ah mayug sunu borom la. xamoon naa ku ko yàlla may waaye dafa génn àdduna muy sëñ Jili Mbàkke ndeysaan loo ko musaana ñaan loo bu la woowee téléphone bu waxee loola dañ bi dee luy mitti jamono yi ñu tollal nag ñi ko mën ci réew mi bëriwul waaye man mën naa ko. ah yow man nga loolu. waaw man na ma na ma ñaan ci distance ndax man bari na yoo xam ni euh, xaal yi ma tollu léegi dafa bokkut ak yama sax njëkkoon a nekk. Ah. yaa ngi dégg. ndeysaan. te itam dem gi may dem dama bëgg yóbbaale wale nit ñi maanaam dama bëgg defaraale doomu aadama yi ngir ñu jëm fi fi nga xam ne fa la njariñ la nekk ñaan nag nattub yàlla la ak luñ ma dénk waaye man sax si naa Ousmane weesu naa fu ma war a toogee di ñaanal nit nit kese ma koy ñaanal billaahi am naa ci yàlla soxla bu ëpp ak ñaan mm-hmm. hmm? waaye sa dayoon nu mu mën a tollu booy yoreen dénkaan faw nga téye ko waaye yéeg ma léegi ma teg ko ne di ko defloo ñeneen ne ci leneen ndax man sama mission ëpp nag ñaan tam mi ngi waaj a déclenché hmm. ñi may faj nag ci lu nit munta faj bari na yi ngay faj ci loo xam ni médecin yi nii mënuñu koo faj bari na li may faj ci ci mbir moo xam ni jàppoon nañ ni amul garab bari na te amul garab sax de. amul garab. amul garab. Mhm. des fois ma laal loo xam ni amul garab. Mhm. loolu naka naka nga koy fajee Cheikh waaw boo jigee boroom jaam ñi buñ amee soxla yow boo waxee mu dégg la. waaw ah, loolu dëgg la. dégg nga wax bi. dégg naa baax li nga wax. waaw moo tax yi nga xam ne bu ma ciy jëflanteeg nit tur yàlla laa ciy jëflanteeg yàlla loolu moom du ma ko mën a wax ci télé. waaye bu dee nag yu mbirum saari yu terre à yi yooyu dama koo dépassé. Mhm. moo tax fi ne communication bi du xaw a neex tuuti day xaw a mel ni lu xaw a jaxasoo waaye nag ñuy dégg am na ñu dégg. dëgg la. dégg nga xam dégg na baax li nga wax. ñaan yàlla daal. Mhm. nit dina ko def yàlla nangul ko. ñaan yàlla. waaw. waaye nit ki xam boppam dong nga ko mën a def. waaw su ma sañoon nit. Mhm. doomu aadama yi seen yitte nekk seen itte suñ borom Seydina Ousmane xamal ni bindul benn doomu aadama jublu ci am am fo fo nii rek ba bind nit yàlla deful loolu de mm-hmm. te yàlla nee na ñi nga xam ni àdduna rek lañ gëm ñëpp perte nañ te bis bu diis mu ngi ma teg ci seen kanam te kenn isaab bis boobu dina ci jaar kenn mënta wiiri wiiri ba doo jaar ci bis boobu ca kanam mhm. te bis boobu yàlla wax na ne na bis bu diis la mhm. kon jar naa bàyyi xel waaye doomu aadama personnalité bi nekk ci moom moom la war a dunde te nit ñi fi ne dañoo amatul personnalité mhm. waaw ndax euh, Cheikh Ibrahima nga baal ma dugguma la euh, bi ma ñëwee euh, ci ci ngoon gi ñuy waxtaan di waxtaan ci xam-xam nga ne ma euh, doomu aadama ci jëmmi boppam mën na dem ba bokk ci créateurs yi suñu borom yi maam yàlla fal ko ci mu nekk ci Cheikh Ibrahima loolu euh, bu ñu ko bëggee dégg naka nga ñu koy mën a tojale ñu xam ne doomu aadama kon ndekete mën na dem ba bokk ci créateurs yi suñu borom yi Ibrahima loolu bëgg naa ngeen di ma ci ay leeral bu baax a baax a baax. ku mu mën a doon Sidna Ousmane créateurs yi suñu borom yi. liñ ci créé muy jaaxal ñépp suñ borom système ba da cee boolewaat doomu aadama fi mu ne nit. Mhm. li muy bari bari bari bari bari cër nit li muy màgg màgg nit ni moom moo koy créé. Ah. <laughs> nii am nga doom joo nirool ju jàngee si rek gis naa ko keroog mu yëkkati yal na ko yàlla màggal. amiin tam tam jëriñ la. amiin yaa rabbal alamin amiin amiin amiin yaa rabbal alamin kooku yaa ko sos buñ ne la woon fu mu jógee rek nga sëgg. waaye la nga jàpp ni moo ko sos ci la nga xam yow ca la nga def lépp sosu ko mhm. waaye yàlla daa bëgg nga participer mais boo participer ba pare xamoo ni participer nga sa participation boobu ban njariñ la lay amal nit ñi Seydina Ousmane il faut ñu orienté waat leen ci yàlla ba kenn ku nekk xam ni yàlla mooy itteem yàllaa ko fi indi te ci yàlla la jëm nit ñëwu fi pour kenn tax ñu indi ko fi nit ñëwu fi itam di fi jóge di jëm ci kenn ku dul yàlla te bis bi ñuy taxaw ak yàlla nag comme dafa nekk suñ kanam te faw mu am taxawaay bi ñuy taxawee ci kanamu suñ borom dañu ko war a leeral mhm. kenn waru ko nëbb bari na lu ñuy wax naan waxtaani biir néeg ak yooyu yëpp foo ko déggee jëmul fenn mhm. alquran mooy wax ji gën a leer te waxuñu ko ci biirum néeg mi ngi ne fang fangaaral ci digg pénc ma lañ ko doon waxtaane yonent bi leeral gaa yi laaj alayhi wa mhm. lu gën a leer alxuraan ci làmmiñ nit mënu koo wax mhm. kon yu tappale yi fi nekk dañ koy nëbbu feek dañ koy faak feek yooyu yëpp amul solo wax naa leen barki dem ni leen ay kamaatara jërul baril mhm. fooyee fi sa maam bàyyi fam jaar jaaroo fa lam def defoo ko lam xamoon xamoo ko nga bëgg a jël fooyee sukkandiku ci gàddu ci mbirum nit ñi jëmul kër. Mhm. <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye euh, waxtaan bi am na solo lool macha allah euh, kon daal bu ñu déggee mooy doomu aadama war na gën a fonk boppam te xam ne yàlla fonk na ko te yàlla teral na ko Cheikh Ibrahima dañuy wéyale waxtaan bi. Euh, ba ci kanam tuuti rek ndax waxtu wi sax mi ngi ñuy euh, xoj waaye euh, Cheikh Ibrahima wàllu cat waaw Ibrahima cat mm, siiw na bari na ñu mu jàpp te lu doy waar la Cheikh Ibrahima bala maa ñëw ndax cat am na ba noppi ak cat bu jàppee nit ki lan moo ko ci mën a dimbali ba mu taxali ko ak moom ndax dégg naa ñu naan it Cheikh Ibrahima bu dee wàllum cat moo la jàpp boo demee ci moom maa ngi am sama benn xarit ñu euh, koy wax mbay euh, woon na ma rek di ma wax ne ma moom it ndeysaan cat daf ko téewoon lool ci ginnaaw bi it bi mu ñëwee mu ne ma ngi cay sant suñu borom subhanahu wa taala maanaam cat lan la mën euh, def doomu aadama bi cat daal mën naa rey nit cat mën naa rey nit nit ki mën nañ koo catu ci bis bi mu dee ci bis bi hmm? ñun de suñ maam ya daan ñaan yàlla boobu Moussa na ñëw ak mettit woo xam ne gis nañ ni mettit yi da lay yóbbu da génne àdduna li ñu njëkk a vérifier ndax mu cat la déet ndax nit ki làmmiñ mën na koo yóbbee loo xam ne te cat ci làmmiñ lay jóge cat ci làmmiñ lay jóge boo déggee Luqmaan mu naan boo xeej yëkkatee ab xeej jam ko nit ki catu xeej mettit woowu mu lay indil muy mitti mitti mitti jëloon junni xeej jamonoo ko kenn nit moo gën ñu jam ko catu làmmiñ ndax catu xeej moom góom yi mën nañ kaa faj ba mu wér waaye catu làmmiñ du wér du dañ allahu akbar yaa ngi dégg tey maanaam man sangat bi may def ci wàllum cat waaw naka lañ koy dindee mu mën a doon ba mën a liggéey lay wàllu cat ba pare bu muy tëdd guddi di la gént mhm. moo tax nga xam ne mbir ma ndawul te man ba may sikkar dëgg dëgg dëgg dëgg ma gént ku dul yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam macha lay gént sëñ bu mag bi xam daam fu ma jëm te ku may faj cat bu ma tëddee dinaa la gént. cat ndawul nit ñi nag war nañ koo moytu. Mhm. waaye man dama dul bëgg a wax ci yu ndaw ndawaan yi waaye bari na koo gis lam amoon dem mhm. ca cat moo ko ko yàqal. bari na ku tëdd mënta jug buñ ko doon faj cat muy wér waaw waaw bari na ay kilifa yu feebar lu ne ngi koy faju mënuñoo gis dara cat lañ dul gis moo tax. Hmm. Ah, cat lañ dul gis. waaw bari na ñu ñëw indi fi tawat yu doy waar walla ne ci xat-xat yu doy waar. cat li lay dindi rek bàyyi leen seen lépp commencé rek naan sëñ bi du nit nit laa comme ñoom waaye daam lu ma xam luñ xamul. <laughs> macha <laughs> nga wax bi dégg naa bu baax. ndeysaan bu baax wax waaw kay. Euh, jërëjëf euh, sang bi euh, ñu ngi sant bu baax a baax baax a baax waxtaan bi am na solo lool wax dëgg yàlla daara ji nga xam ne ñu ngi koy déplacé di ko yóbbu fu nekk. ci biir réew mi ak biti réew ndax tase woon naa ak yow euh, ca Gabon yaakaar naa sax suñu xamante foofu la ko yàlla nam ne ginnaaw bi it euh, ñu tase euh, tubaa Congo ginnaaw bi it Afrique du Sud sëñ bi réew yooyu tamit bëggoon nañ balaa ñoo tëj nga nga leeral ndax day mel ni yaakaar naa ay at yu bëree bëri yaa ngi yaa ngi yaa réew rek rawatina Afrique centrale gi nga xam ne Euh, yenn façon xam-xam yi siiw na fa lool Cheikh Ibrahima foofu yi bëgg naa nga ñamal ci doomu aadama yi dëkk yooyu daal lu fa doon say tànk <laughs> yàlla dogal na li may néew néewi at 33 pays ci Afrique dugg naa fa 33 pays macha allah te réew mu ne yëngal naa fa tur yàlla alhamdulilah te ku fay nitu yàlla ko faatu dem naa ci sa xabru ndeysaan siyaara la si aras njaboot jaayanteeg ñoom joxe fa sama addiya sàkku lañ xam ca ñoom mm-hmm. yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla daan yónnit lu mu gàtt gàtt juróom-ñeenti yonent tegagul naa sama tànk bi ci seen xabru yi alhamdulilah te bëgg naa koo def ñaar fukk ak benn alhamdulilah macha allah yaa dégg mm-hmm. lu ne gis naa ko lu ne xam naa ko ku ne toog naa ak moom li ma jaaxal léegi bëreetul sëñ na Ousmane. ndeysaan. waaye yow. da ngaa doy waar ndax bañ daje woon it bañ fa dajee daa am yoroon ndox xam naa ne yaa ba léegi da nga dugg di génn rek. <laughs> waaye daal <laughs> am nga ab cër ci sëñ Tuubaa. waaw alhamdulilah rabbil alamin ndax ku sëriñ bi tànn ba boole la ci jàngkatu xasida yi ak xasida nam mel. alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin ëllëg yowmal qiyaam sëriñ bi bind na ci biir xasida yi ne am na kuréelu malaayika goo xam ne xasida dong la ñuy jàng alhamdulilah la boole ci nit ñi koy jàng fii li sëriñ Tuubaa waxoon ci biir xasida yi ci njariñ yàlla na feeñ ci yow feeñ sa njaboot àdduna nag daan nekk ci kanam mhm. ñuy gungante di dem ànd yoon woo xam ni suñ borom rek xam fam yam waaye maa ngi sàkku ñaan ci biir yoon wi liñ ciy séq yal na ko yàlla raxal amin amin amin amin euh, li fi jot ak génn nag bariwul ndax man maa limite waxtaan wi amin ndeysaan mhm. ndax waxtaanu baatin mhm. daa ànd ak i kot mhm. te am na loo xam ni mënaguma koo leeral sañaguma koo leeral waaye ci yeneen émission yi bu nit ñi commencé adapté wu bay ba commencé connecté wu ba commencé di di xam fi ñuy waxee su boobaa yaakaar naa ni man li ma li ma root ba duy ko. Mm-hmm. Sénégal da cee tuuti. alhamdulilah. li ma root yi. Mm-hmm. man ba indi ko. duy ko nga xam ne moom laa bëgg a génne. Mm-hmm. ngir njariñul jaam ñi. dama ne jëmmi Sénégal dong da cee tuuti. Ah, alhamdulilah alhamdulilah. ci kanamee rek. bu fay dugg tàkkee lépp feeñ. jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf sant nañ bu baax a baax a baax macha allah xam naa kon waxtaan yooyu nga xam ne boo ko génnee rek euh, Sénégal yëngu incha allah loolu it bëgg nañ ko ànd ak yow ndax daara ji it euh, fas nañu yéene ànd ak yow euh, ci mboolem waxtaan yi nga xam ne it yaa ngi koy soxla ci ñun incha allahu rabbi ñu nit ubbil nañ la. seen bërëb ba nag dina soññ nit ñi ñu fay bari ay tànk xel koom pàkkub leer la. boo xam ni sëñ Touba ci boppam moo fa orienté woon sëñ Saliou bërëb la boo xam ni sirru alquran dafa dafa nekk kuy ñaan yàlla nag fa nga yaakaar nga jëm hmm, fa nga yaakaar rek nga jëm waaye waaye gisaat bërëb bu mel ni xelkom ci réew mi ci sirru alquran moom moom xanaa lu waay mën a xool mën a xool moom hmm, hmm. xool feneen ba gis fu mel ni xel kom ci adduna bi yaakaar doo ko gis déedéet <laughs> kon ku alxuraan ñor mën nga faa jëm wallaahi dëgg la man fay ñëw ay guddi yi ngeen yëgul dëgg la ndax man leeru yàlla <laughs> uh-huh. fu ma ko xeeñtu teew fa mm-hmm. dëgg la ndax damaa yitteel ndeysaan macha allah ndaw laa waaye xam naa ni suñ borom dong nga fi ne mm-hmm. yaa ngi dégg ndeysaan njariñ lu may séentu ci keneen ku dul yàllaat man amul amul amul njariñ loolu amul mm-hmm. seen foofa maa ngi fay teew leer ga fay jolle jëw kaw jëm kaw asamaan dara ump ma ci. ndeysaan kay alhamdulilah. waaye loolu day wane matuk sëñ Saliou. Mhm, dëgg la ndeysaan. yàlla dénkee. Mhm. da nga fiy bàyyi jeex. ndeysaan dëgg la. Mhm. taafaan sëñ Saliou def na ci loo xam ni. adduna. ak allaaxira leer na leen nañ ne njariñi sëñ Saliou du jeex ci kaw suuf. alhamdulilah ku ne xaj na ca. cey li gën a dansé ci adduna la sëñ Saliou def. mooy jël ay ndaw def ci ñoom xam-xam. alhamdulilah rabbil alamin ndax ndaw mooy mooy lépp. déggoo ma de. <laughs> li gën a dansé ci àdduna moom la fi suñu sàll def. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan muy jël ay ndaw. Mhm. def ci ñoom xam-xam. Mhm, ndeysaan. moo tax xel kom mhm. gëm naa man a ma fi bañ a fekk. ëllëg. waaye ndaw ñi génnee xel kom te dëggal te sax ca la leen sëriñ ba bàyyi woon. dinañ bokk ci ñiy orienté àdduna bi. alhamdulilah. jëmee ko fi neex yàlla. jërëjëf. loolu nag takk ko. Mhm. ci mën nga ko déggee. Mhm. ñu dem ba ci kanam tuuti. baax na incha allahu pàkk ba bu fay gëj. bërëb ba bu fay gëj. ndax leer alquran nga fay jollee. Mhm. faj na soxlam nit. wallaahi wallaahi dëgg la dëgg la wér. dëgg la de waaw dëgg la de <laughs> waaw loolu day moo ko tàndoon macha allah ndax xel koom euh, ku nekk bëggoon na ko. waaye nag eh, eh, Serigne Saliou la ko sunu borom jagleel ci barkeb Serigne Touba eh, kon sant nañ bu baax Cheikh Ibrahima di rafetlu bu baax ci dalal gi ndax ci suba ba léegi wax dëgg yàlla sa loxo teggeekuwul ci ñun teraanga ji ak dalal gi ak jàmm ji ak wayef gi ak ubbil gi ñu ubbil sa jëmm ndax wax dëgg yàlla fekk nañ la it nga xat lool waaye dangaa bàyyi sa yitte yépp nangu ñoo teeroo nii nangoo séq ak euh, waxtaan wu toll nii te ku ne xam na ne amuloo jot waaye nag euh, xëy na teg goo teg diine ca kaw ak bëgg goo bëgg doomu aadama yi jariñu rek moo tax nga def lii kon mbokk yi li may ñaan mooy euh, yàlla ñu suñu borom defal ak dégg euh, ak topp maa ngi nuyu bu baax sama caméraman bii ma àndal moom it di ko ziar bu baax a baax a baax di ko jox wàcc waayam euh, di ko xamal ne ko liggéey bi rafet na lool macha allah kon dañuy yëkkati jotaay bi ba ci yeneen jamono incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw